Voilà, sur la scène de Nairobi, l'international. maa ngi leen tuuti la famille. merci ah kontaan nañ trop ak ñaareel bi yow mi newoon ñaareel bi new fi. madame Sonko nekkul ak moom. allez ciao ciao tey tuuti sax di ngeen pare dama rapidement La voiture est là. voilà madame merci ah kontaan nañ trop vraiment madame Sonko allez ciao ciao bonne fête voilà sur la chaîne de Laye Roby a am sens yéen ñuy abonné si seenu Laye Roby këru Sonko re lee reeree tey non du man <laughs> Badji Bassène salaamaaleykum voilà voilà tout à l'heure sànq euh, euh, avant juma wa waxoon nañ ak euh, le pos nu mu tuddati conseil des casseroles pour ñuy laaj ci commentaire yi Sonko fii lay passé fête à Ziguinchor léegi suba faay mënti nekk dañuy def rassemblement ñu dem gàlleem gàlleem fii voilà foofu la ñuy dajee ñu yëngal dañuy yëngal bu baax voilà ñu kontaan ci laayro bi comme à euh, euh, Yakhadi Tamba depuis à euh, Bordeaux salaamaaleykum maa ngi lay chat e eh, soxna may moom man maa ko may ki ma ko may nee na bëgg ko la bëgg waaw man maa moom caat <laughs> voilà c'est cuisine voilà bro na yow da dem léegi di wala ok gars yi ciao ciao ciao ciao ñëw rek teg sa baaraam ku teg sa baaraam rekk automatiquement machine bi day enregistré heure bi nga xëy ak heure bi nga ngont nee naa leen seenu Laye-Roby lépp ngeen di am ine est 19 heures à une minute sur la scène de Laye-Roby voilà